daje nañu ak ay jigéen yoo xam ne dañoo takk seen digg di liggéey ñuy liggéey ci lépp loo xam ne mooy soppi liy jóge ci géej wala liy jóge ci dex euh, ba tax na ñun nga xamante ne COSEC suñu mission bokk na ci accompagner lépp loo xamante ne moo di filière yi nekk ci euh, koom-koomu réew mi yëpp ñëw nañu tey seet si leen euh, daal di leen déglu bu baax a baax ñu wax leen ñu wax ñu lan mooy suñu seen ay jafe-jafe seen ay mbébét ñun tamit ñu indil leen benn appui boo xam ne dañ leen ko jox ngir dimbali leen ko yaakaar naa ni partenariat buy commencé tey la

parce que bi ma ko nee damay entamé tournée bi daf ma né non seulement damay joxe sama bénédiction mais dama la ci encourager bu baax demal nga rencontrer jigéen ñi nga rencontré ci nek ci wàllu nap gi ngeen taxawu len ko que indi len lepp lo xamante modi moo bi ñu wara soxla donc ma ko ci jaajëfal bu baax di jaajëf exactement parce que li ñu seetlu Sénégal mo li ci ëpp mu nek nap gi wala bay bi li ñu am rek dañ koy jël jébbale ko bitim réew té lool boko défé do mëna créer li ñu woy valeur ajoutée c'est-à-dire que tey lépp loo xamante ne dañ koy soppi ci biir réew mi di am ay jigéen wala ay góor ay ndaw yoo xam ne war nañ ci mën a liggéey bu baax a baax balaa ñu koy jël di koy jébbal ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew donc loolu noonu dafay tax ñu créer ay emploi ñu am ay ndaw yuy liggéey ñu am ay jeunes yu liggéey ñu war a mën a endiguer chômage bi donc loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne ñi nga xamante ne mooy ñoo jiite réew mi jox nañu instruction yu ni mel donc incha allah dinañ ci gën a taxaw gën leen ci accompagner bu baax a jaajëf. Ah, man maa ngi tudd madame ñaa Yaram Fall nekk euh, secretaire général euh, mbootaayu jigéen bu ñuy wax boo ko xool jàmbaaru siin. waaw tey dañu am mbégte mu rëy parce que ki nga xam ni moo jiite côté COSEC muy directrice bi moo fi ñëwoon wàcc sur le terrain mais wàcc bi dafa lëkkalikoo ak IPAR benn kuréelu gëstukat bu gëstu ci Sénégal docteur Cheikh Omar Ba jiite ko nu ñëw wàcc sur le terrain li ko yëkkati nag mooy seet. jigéen ñi nga xam ni dañuy yëngu di daan seen doole nemmeeku si ak ñoom waxtaan ak ñoom xool nan ñuy lëkkalikoo ba nga xam ni si li ñuy liggéey jafe-jafe yu yëpp du saafara wu mais mu am lu ci wàññeeku am gunge bu am solo tamit macha allah boo xam ni daf ko fas ne jàppale ak lëkkalikoo boo xam ni daf ko bëgg daal lëkkalikoo ak ñi nga xam ne ñoo liggéey. waa xanaa di si am mbégte rek parce que xam nga kii wut ku la wéttali ak ki nga xam ni day wut euh, fu mu fanaan. tëjal bunt bi du leen boole parce que bu nu waxee jigéenu napp dañuy wax ni euh, lii solos liggéeyu napp ñoom noo koy liggéey parce que bu sunu góor yi demee géej ba ñëw ñun nooy soppali te soppali boobu dafa ëmb lu bare parce que mool bi mën na dem géej teer ku nekk jël sa nar mais jigéen biy soppali kay yenu da siy gis boppam kay waas gis si boppam kay dagg bopp gis sa boppam kay weer kay soldat mbaya ba kay yenu yóbbu sa magasin bi sax def siy gis boppam kon ku jàppale jigéen buy soppali da nga jàppale li mu ñit ñu takku ñoo xam ni ñoom ñu ngi liggéey si biir secteur boobu waaw ah